projet yi nga xam ne taxawal nañ ko état bi taxawal na ko depuis euh, ba aéroport bi taxawee ba tey moo ñuy àndil jafe-jafe mu jot nag ñu wax ci lu tax mu jot ñu wax ci parce que dañu jàpp ne ñun sumu xeet saafi dañu nekk xeet boo xam ne loo ñu teg ñu tegoo ko ñun nag il faut que Sénégal xam ne àddina bi xam ñun sunu yar sunu teggin nekkul ne dañoo ragal nekkul ne dañoo xamul sunu bopp nekkul ne dañoo xamul fan la ñu jóge donc projet yi nga xam ne moom la état di teg ci sunu kaw la ñu bëgg mu wax ñu ndax ñun bokk nañ ci communauté sénégalaise ci askanu Sénégal wala bokkuñu ci ndax lépp lu état di def depuis 2007 ba léegi bi ñu taxawee taxawalee aéroport bi ci sunu gox la koy andi gox bi nga xam ne nag lu tax mu metti ci ñun te duñ ko nangu ñun warli waañ wu ñu dëkkuwaay ñun fii la ñu dëkk fii la ñu cosaanoo sunu ay maam ñoo fi sos dégg nga sunu maam yee fi sos donc ñun am nañu sunu droit boo xam ne droit coutumier la boo xam ne toog nañ ci te loolu wax dëgg yàlla kenn mënuñu cee weddi donc état bu àndee ay projet mu commencé ko ñu boole li ñu metti ak li ñu neex yépp ñu bàyyil ko ba ñuy taxawal seen aéroport bi wax nañu ne li ñu soxla woon jël nañ ko ba pare ñu toog nañu li ñu li ñuy soxla woon ci aéroport bi jël nañ ko ay nit dinañu ñëw nag ne len dañoo soxlawaat leneen waaye lu leen nit mën a wax ñun état du Sénégal jël nañu li nga xam ne moom la ñu soxla ci aéroport bi jeex na ñu toogaat ba mu am juróom-ñetti at beneen décret 2010 génn ci kaw 1350 hectares ñu jëlaat 4000 ndax dañu bëgg a sécuriser aéroport bi 4000 hectares ku ko jël fenn te yow la nga fa tabax mu wara nek ci 4 hectares ak 200 ñun moo tax état war ñu wax lu mu nam ci ñun ñun japp nañ ne ci 4000 hectares yi nga xamne mom la état jëlone lu mu ci soxla war na fa mën yem bu fekke ne nak doxalina moy mu fi ñun askan bi nga xamne bañ fi tok république taxawul bañ fi tok état taxawul bañ ñu ben gouvernement Lolo wara nyun tax ñun ñu gis jàngat ci ne ñun état daf ñu doyadil nit ki nag buñ la poussé ba nga sës miir dootoo amati fooy jaar pour jàll jàmmarloo ngay def te dañu jàpp ne état du Sénégal daf ñuy provoqué te dañ koo bëgg nekanak xamal ne ka nag ñun ci askanu Sénégal lañu bokk ñun askan bu yaru lañu ñun topp nañ ko ci projet ya nga xam ne ba mu ñëwee moom la teg te ñun tamit dañoo bëgg xamal état du Sénégal nekk ñun xam nañu yoon bi ñuy jaar ba ñu bàyyi ñook lu ñu moom